jugee ba Touba fii ngeen nekk fi naan ay ay ay kii. loolu moom a jaaxal sëñ Maodo ay kat sëñ bi dama xamul kañ la je suis désolé mais euh, il faut respecter les invitations. parce que si j'étais dans le plateau euh, il fallait respecter euh, le plateau c'est très important parce que la télé c'est pas compliqué. <laughs> di nuyu ñi ma fekk ci plateau bi yëpp euh, di am ci ñoom mbégte kontaante euh, di ñëw di la déglu nga laaj mu tontu. Mm-hmm. sëñ Modou tey moom lan la. Euh, je énervé. def ma la énervé. je énervé par la par la débat sàcc ay <laughs> ça m'énerve. waaw ku ci mel ku nekk da sàcc ay. ça m'énerve. allez au boulot. waaw léegi. bala ñoo waaw au boulot ma <laughs> yow yaa ma war a conditionné wala man maa la invité nga naan ma au bloc. au bloc euh, léegi sëñ Maodo dañu bëggoon nga wax ñëw li xew keroog euh, ca Touba yow mi nga xam ne rek euh, moom moom ci en tant que sëriñ keroog la xewoon dañoo bëgg nga wax ñu ko nga rëbb naa tamit aussi muy dafa amoon lépp. li xewoon ban bés. mooy jour bi nga xam ne rek Sonko dafa ñëwoon. waaw Ousmane Sonko a venu là-bas à Touba. waxal olof. bu ngeen déggul français ngeen wuti ku leen ko. déedéet da ngay wax ci olof ñu dégg. je parle français moi je parle français. déedéet bàyyi ko mu wax français ndax ay français ñan ndaxaan la ñëwal. je m'exprime en français parce que mm-hmm. je. voilà très bien. lui il comprend. Uh-huh. je parle avec la communauté internationale. Mm-hmm. France 24. Euh, les. RFI B BFM TV et et, RFI. Vous savez que Ousmane Sonko a venu jusqu'à Touba. Mm -hmm. il apprend il apprend le route. il de la corniche. il a lan il entre le Touba. Uh-huh. sur le 28. waaye. Mm-hmm. Euh, bi mu jëwee ba Touba. Mm-hmm. il n'a jamais fait ça. ça c'est des manigas de Sadaga. et mm-hmm. les autres. il est venu jusqu'à Touba. il fait son prière de vendredi. maanaam mm. jullit àjjuma. déedéet wax ko france ba tey continuer ko di wax français. parce naa loolu français dama ko teg ci wolof. déedéet ah ah yéen ci dañuy duñ fi waxati dañuy loolu. parce que di ngay di ngay waxtaanal lu continuer doo ko def nag fii émission bi rek bu la neexee nga jug na kon wax da nga ciy wax nu neexee. Euh, bi mu ñëwee mm. y avait un daayira. daayira bi nu mu tudd kii charge kii xam na ko waaw ci la kon la boo xam ne moo yore lépp lu jëm ci wàllu jumaa ji. bu mm-hmm. waaye euh, on l'a mis des conditions wax ko ne ko yëf yi nii lay demee il a accepté d'accord. Mm-hmm. il a fait le prière après le prière. le. Ousmane Sonko a sorti sur le mosquée de Touba. les gens voulaient écrire crier Sonko Sonko il dit non jërëjëf sëñ Touba ça c'est très important c'est un point. qu'on doit expliquer. Après, il a fait son sommet jusqu'à <coughs> la frontière entre le Touba et la Mbacké les alkaati. la frontière ban frontière. Touba ak Mbacké dafa am frontière. bon lan mooy frontière bi Touba ak Mbacké frontière bi frontière mooy fi ñu yem. fi Touba yem ak ah, frontière booy wax xanaa gàmmi nga waaye naan Touba dafa am frontière. te gën a les alkaati on met les euh, lacrymogènes il dit les manifestants rentrez à Touba n'entrez pas de Mbacké. Les manifestants dit qu'on voulait manifester là-bas à Mbacké. Uh -huh. Les Alkati. Les Alkati. Si les, les, les Gonais lancent les cailloux, <coughs> si les Gonais lancent les cailloux, les jeunes, les cailloux de ces petits entre dans le Mbacké. Les grenades des Alkati entrent, entrent dans, le Touba. Mmh. Vous voyez, parce que c'est la frontière. Les Gonais de Touba et le Mbacké ils sont dans le Touba les alkaati ils sont dans le Mbacké. man comprendre les cailloux de les cailloux de les entre dans le Mbacké les grenades de Mbacké entre dans le Touba. kon kon vice versa dafa jaxasoo. léegi nag. waaw. ku taal. day bi parce que xeer yi. na nga Mbacké. xeer yi. na nga Mbacké Touba lay jóge di jëm Mbacké. grenade yi di jóge Mbacké di dem Touba. Euh, kon ça veut dire que. leer policiers yi ñoo taal Touba. yi loolu leer na. policiers yi xeer yi fu ñu jógee. Euh, Mbacke. Touba dem ci Mbacke. grenade yi fu ñu jógee. tu Mbacke. loolu kay leer na. yow kay da ngaa leeral ni policiers yi ñoo indi problème de ñoo nekkoon Mbacke. waaw naan waa gars bu ñu dugg Mbacke bu dugg Mbacke. waaw ñii ne dañuy dugg Mbacke. Ah. c'est ça le problème. demeewul noonu de waxeewuñ ko noonu nan lañ ko waxee. ah yow kay yow ma ko waxee. c'est ça leer na de. leer na moom kon ça veut dire que policiers yi ñoo sànni grenade yi Touba. grenade les grenades. waaw des policiers. sont entrés dans, dans le Mbacké avant qu'on le tire mais si on le tire il entre dans Touba. ah lu tax nga bàyyi fi préfet mi nga xam ne tey lépp mooma moo ko waroon a valider ba pare invalider ko. merci beaucoup. lu tax euh, laajuñu ma lool de. waa dama man dama lay laaj. waaw moom la ko laaj il faut poser sa question. laajal waaw moo tax dama ne sëriñ bi mbaax dama ne lu tax lu tax kay ab laaj la. lu tax donc il faut poser question. waaw lu tax. nga bi nga xam ne tey. bàyyiwuma ko fi parce que laaj ñu ma ko lu ñu ma fi laajul du ma ko. waaw maa la koy laaj nii. waaw léegi laaj ko léegi laaj ko bàyyiwuma ko fi quand même. waaw d'accord léegi. Euh, waaw respecté léegi préfet. léegi préfet mi mhm. léegi lan nga koy wax. wala préfet de Mbacké et de Touba c'est une préfet Euh, qui a brûlé le Touba. c'est le préfet ah, parce que le Touba. Ah, si le préfet autorise ah, ce manifestation la manifestation doit être une manifestation pacifique mais le mbooloo mbooloo mbooloo fan massif de Cheikh Thioro et les autres mm-hmm. mobiliser le préfet n'ose pas que les caméras Euh, filme sa pour le montrer le président de la République mm-hmm, mm-hmm. si il filme le mbooloo le mbooloo va déstabiliser le président le gouvernement de la République donc c'est pour cette raison ils sont dit que mm-hmm. tout sauf le mbooloo et pourtant on a finalement vu un mbooloo marchand le mbooloo qui marche mais il marchand am moo ma jaaxal marchand nga ne un mbooloo kii marchand luy marchand marchand ambulant wala la mbooloo muy dox mbooloo muy dox ah, foo dégg tubaab sa dégg dégg ñu dégg ñu tubaab parce que li ngay wax ni xamuñu ko le morceau le marche le mbooloo le marchand ambulant le marchand le mbooloo en ah, marchand loolu mooy la ah, mbooloo muy dox en marchand le marchand en marchand le marchand en marchand le mbooloo en marchand le marchand vers le Mbàkke Bawal am na tey yow kilifa yi Touba ñu ngi lay déglu boo waxoon olof. parce que sëñ Cheikh Thioro sëñ Cheikh Thioro lii ngay wax. waxu ko lii waaw sëñ Cheikh Thioro déggul français. saa yu xëy ñu jabali si ko waaye bu ma làkkee tubaab bi ma dégg tubaab kenn ma jabali si. il faut ma laisser sur ces français. sur ces français parce que français mhm. boo fi wax olof rek. gone gu ndaw jóg tontu. mais nan nga gisee. mais si tu parles français. Euh, mais nan nga gisee saaga yi ñuy saaga ñi nga xam ne rek moom moo di kilifa yi. Euh, yaa ko gis. ah dañ koy wax de dañ ne ñu ngi. waaw comme dañ koy wax rek man bokk ma ci ñu koy wax donc comme que yow bu dee gis nga ko rek nga wax ma kanay saaga. waaw sëñ bi da laaj rek débat la bu ne ci politique bu ne ci penc mi. Mbaye Pekh n'a pas sa place dans le enceinte de jumaa ji. Mbaye Pekh jumaa ji dañ ko war a télé luy luy jege. Mbaye Pekh doit aller jusqu'à Ngaabu. nañ ko bu mu dugg Touba. <laughs> parce que mbay. léegi yow lu tax nga mbay pexe man mosuma gis ni yow lu la neex ngay wax lu la neexul doo ko tontu. non il fait d'accord mais nañ ko tere nañ ko tere kon kaddu gi mais mais Touba nag moom buñ ko fa tere. enseigne ah, bi léegi nañ ko tere micro bi nag mais pas tere ko Touba ah sëñ bi hmm. may nañ ko tere micro bi mais waruñu koo tere Touba émission bi tey ah? mosul am ma waruñu ko tere Touba mais nañ ko tere micro bi rek mu bañ a. loolu interdit à Touba parce que Mbaye Pekh défense de Mbaye Pekh dañoo war a taf photoom ci. persona non grata persona non parce que li mu wax yoon wi xamul loolu bu leen ko jox kàddu waru leen foon a tudd turam loolu c'est pas Touba loolu dafa ñaaw mm-hmm. euh, il faut que mbay Pekh les cérémonies officielles il faut qu'on interdit Mbaye Pekh si les cérémonies gisoon ñu sol caay ak bolok di di sànni xeer nag waaw caay ak bolok waaw loolu caay de na mën nga koo ñawloo Dakar mën nga ko ñawloo Mbàkke mën nga ko ñawloo Touba. Euh, est-ce que caay ji carrément caay Touba la. est-ce que caay caay ji est-ce que téeri Touba confirmé nañ ni caay ji est authentique Touba waaw parce que y a des caay yoo xam ne Dakar lañ ko ñëwee. waa ji gars yi ki ñu jox drapeau bi ci marché bi mooy pour ki takkoon digg li sol caay ji. caay ji caay fan la il faut que il faut qu'on examine le caay pour authentifier le caay. d'accord jërëjëf jërëjëf. Euh,